mbokki Sénégal mbokki Gambia Jamaïcain le promoteur de la gambia moo ñuy jox rendez-vous le 13 février incha allah foofee ca Gambie ca stade bu Pakaaw face to face bi war a am ci diggante Leket ak France booy Balla ak building bébé xarañ ak amical ak yeneen ni ndaanaan ñu war a waree seen bopp ci bés boobu. ñu ni animation ba kan moo ko géré ñu ne moom moo ngoom ak artistes yi ne ci diwaanu Gambie yëpp sponsor bi ñu ne DMG Property la xel comme automobile White House Résidence en collaboration avec la STFM Lutte TV. wasaare lamb Conscient TV ah mbokki Gambia nag am ngeen bés le 13 février incha allah. jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur ak jërë jëf mbokk internet yi ngeen xam ne yéenay safoo di seetaan Lutte TV tey nag ñu lëngoo ceeg euh, seen seen partenaire lëngoo ceeg seen xarit seen soppe muy Prestige TV ba looloo sabab seen soppe sekk naan tey leen micro tey lamit ñu ngi koy nuyu bu baax mbokk fii ñu toog nag ñu ngi ci biir euh, précise muy télévision bi nga xam télévision régionale la muy télévision bi nga xam site internet la boo xamante si ni ni ma koy faral di waxee rek moo mujjee juddu cees waaye ëpp ci dongo ëpp ci bayre ëpp ci nombre d'abonnés ëpp ci nombre de vi li sabab loolu nag mooy mbokk yi seen compétence seen savoir fair seen liggéey ak seen xarañ goo xamante ni seen kilifa ñoo leen wormaal ci loolu jiital leen ci ñu ànd ci. mbokk yi li waral jotaay bi tey nag du lenn lu dul wàllu làmb promoteur de la jeunesse promoteur bi nga xamante si ni jamaïcain di doomi gàmbi di doomi Sénégal di doomi àdduna mbokk yi moo tëgg làmb ji mag fële ca Gambie. gannaaw ba mbas mi wàccee fii ci Sénégal nga xamante si ni ay yëngu yu bari dañ koo ndar kàpp lu ci mel ni làmb tamit noonu la naax saaye ci xalaatam bu rafet mu ne léegi damay yëkkati làmb yóbbu ko génne ko réew mi lu kenn musul foog waaye bu ko defee duñu guleet ndax daaw defoon na ko ci diggante Baye jon ak xoyantaan ren mu dàbbali ko nag war a dem waaye anakan la ci war a njukkal ñu ni monsieur le ministre Youssou Ndour jukkiwaat ci biir jàmbaar yooyu nag kenn ci PDG Prestige TV muy Pape Doumbia feggoog mi ni sama càmmoñ ne ko gannaaw bu ma tuddee Youssou yow laa ca bëgg a toftal ndax da ngeen a méngoo ay jëf méngoo nu ngeen di doxee méngoo seen taxawaay ci réew mi muy social ci jàppale dimbali jigéen ñi dimbali néew doole jël sa alal dugal ci santé bi jël sa alal dugal ci éducation jël sa alal dugal ko ci li nga xam si mooy yokk ab développement ci réew loolu nag ndaw ñaa àndandoo ba d'accord ca ni ko yow nag gannaaw bu ñu tuddee Youssou Ndour la cay taftal jëlee la fii Sénégal yóbbu la ba Gambie wana la nga génn àdduna wana la nga génn réew mi. loolu lay sabab nag Jamaïcain am xalaat boobu nag jukki Pape Doumbia mu feggoog nag la directeur administration muy Moussa Mbeng ñu ñëw fii tey ànd ak Lamine Seck war a séq waxtaan indil ko bataaxal bu neex bi war ni ko daal incha allahu rabbi làmb ji ñu dëtmal mal la date bi làmb ji ñu dëtmal le 28 kon gannaaw Youssou Ndour ca drapeau 28 mars gannaaw Youssou Ndour ca présentation bu mag ba kon dañ cey toftal monsieur le maire zone nord Pape Doumbia toftal ci le PDG Pape Doumbia taftal ci lamel lu am social ki man ci jigéen ñi man ci jirim yi man ci baa yi man ci facture courant yi waaye man ci tamit ñi nga xamante si nii seeg seen loxo jotul seen ginnaaw boo génnee tey fii ca bunt ba doo xàmmee njaay ak jóob Sénégal ñëpp a fi daje tey ndax lan yaakaar yaakaar googu nag lan bëgg Sénégal xam ni doomi réew maa ngi ci réew mi am ñu koy yaakaar kon kooku kun war a buux la kun war a dooleel la muy Pape Doumbia miy toog nan la war a mën a sóoboo ca bis ba nan la gisee ni ko jamaïcain delloo njukkal nan la gisee xale yi xalaat bi ñu am ba ñëw tey ni ko Pape Doumbia dañoo bëgg a ànd ak yow ak sa télévision ak sa jàppale ñu ànd ak yow dem Gàmbi tëgg bis bu mag boobu ana ya jàngat la ci war a def mbokk yi moom la ñuy dëkk micro mu joxal ay kàddoom PDG bismillah. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk turam ak santam di nuyu waa Lutte TV di nuyu Seck di nuyu Mbengue Abdoulaye di nuyu sunu mbokk mi di hmm? ah ñu lay nuyu bu baax euh, di di di kontaan lool ci ci yëg-yëg bi di kontaan ci déplacement bi ak ak bàyyi sa lépp ñëw fii seet suñu ngir ngir ngir ngir li nga xamante ni mooy euh, mbirum làmb yi nga tuddee ñu ko vraiment muy loo xamante ni euh, am nañ ci yëg-yëg bu rëy ndaxte nit ki moom bu la yëgee rek loolu dafa am solo donc vraiment muy aussi lu ñu bett mais aussi ñu ciy kontaan trop. di la xamal ni aussi incha allah bu neexee ki maye suñ fi yàlla bàyyee ba ñu fekkee tal ko dinañ ci taxaw eh, dinañ si jàpp te buñ ko yàlla mayee ñoo am jot bi dinañ fexe xool lu ñuy fekkee loolu ci ca Gàmbi incha allah donc loolu mooy lañ bëggoon a wax di wax ni yëg-yëg bi daal yëg nañ ko te it kontaan nañ ci te day montré rek nii am na ñoo xamante ni ay ndaw lañ ñoo xamante ni ñu ngi def lu am solo. muy liggéey te euh, liggéey moom rek moo am solo fépp fu ñu toll nii waaw xam nga ni jëlee làmb fii yóbbu ko ba Gambie loolu lu metti la donc ça nécessite des moyens donc suñ gisee ay ndaw yoo xamante ne dañ ci nekk di ci liggéey donc lu ñu mën lu dul di leen encourager di leen ci féliciter di leen ci ñaanal incha allah ñu nit lépp lu luñ ci mën rek ci wàllu accompagnement waajul taxaw si ñu nit suñu participation dañ ko ci def incha allah. musul waaw yëg-yëg la rek yëg-yëg la rek parce que tey boo seetee ki def lii man xawma ko tey laa koy soog a gis donc su amee lu mel noonu mu def ko sa ça prouve que ni ñun à travers le Sénégal am na ñu ñuy suivre donc euh, yëg-yëg boobu nag def ñuy ñaax rek ñu gën a redoubler d'effort euh, muy man ak ñi nga àndal ñëpp rek wane ni nañ nekkaat ci liggéey bi parce que li des bari na. waaw kàddu yi rek mooy kàddu remerciement. di wax nii ki nga xamante ni moo waral lii ni ko gis nañu maanaam ni mu ko taxawoo ni mu bàyyee léppam choisir ñu ci bàyyi ñu bari ñëw ci ñun donc loolu lu foor la donc incha allah ñun nit dañ fexe ba lépp loo xamante ni suñu kàttan yegg na fa dañ si jàpp incha allah. Ah, euh, d'abord vraiment dañuy rafetlu bu baax a baax li nga xam ne initiative yi nga xam ni euh, Lutte TV jël na ko euh, vraiment ñëw fekk fi euh, PDG Pape Doumbia bi nga xam ni moom moo jiite télévision bu mag boobu nekk fii ca Thiès ñu koy wax Prestige TV vraiment ñu ñëw jëlal ko njukkal ci làmb joo xam ni sunu ndaw boobu nga xam ni mooy Jamaïcain nekk xale bu ndaw vraiment di ko tëgg diggante fee ca Gambie maanaam vraiment mu nekk loo xam ne rafet lañu ko te loolu vraiment mu jox ci cër bu mag a mag. dama euh, sunu DG bi Pape Doumbia tuddee ko tuddee ko ci ci làmb ji euh, li ci gën a ma pare boole ko toftal ko ak ko nga xam ne wax dëgg yàlla tamit référence la ci Sénégal ci njàmbaar muy kooku muy wax yu Youssou Ndour kon loolu mu nekk honneur bu mag bu mu defal sunu PDG Pape Doumbia mais ñuy wax waa waa Lutte TV rek incha allah rabi loolu ñu defal ñun xam nañ ko gis nañ ko yëg nañ ko muy cër bu mag bu soobee yàlla incha allah comme ni ko PDG waxee léegi rek dinañ ci taxaw li ma ci bëgg a teg rek mooy. PDG boo gisee mu ànd ci projet bi lenn rek la mooy kii koy tëgg d'abord xale la ba par presse ñoo koy def kon loolu moom cëram la mu puus ko mu mu jàpp ci lépp loo xam mu mën na ko def mu def ko ndax kat moom yitteem yëpp euh, depuis mu muy yëngatu lépp jeune la xale la xale yi lay toppatoo góor euh, ak jigéen pour que parce que vision mooy suba xale yi suba ñi nga xam ñoo war a yore Sénégal nañ la doon war a tax la ñu war a taxawee kon nag bépp à chaque fois que mu gis benn jeune boo xam ne ci domaine bi mu nekk mi ngi ci distingué wu ngi ngi ciy góorgóorlu moom dafay def ci boppam devoir pour que jàppale kooku pour ko pour encourager ko en tout cas li ñu leen war a xamal rek li ñu leen bëgg a xamal mooy président Doumbia taxaw na pour accompagner leen vraiment ak équipe bi yëpp bu soobee yàlla lépp loo xam ni. war na ko ci dina ko def lépp loo xam ne tamit war na ci équipe télévision bi dañ ko def lépp loo xam ne aussi war na ko ci teewaay aussi incha allahu rabbi euh, dinañ dinañ ko def ñuy wax rek euh, ndaw Sénégal yi nañu jël exemple ci yu mel nii euh, bu kenn wax ni xalalaa laa mënuma lii bu kenn wax ne déedéet il faut toujours àddina ñuy jéem te Pape Doumbia ci loolu lay inciter les jeunes moo tax jamaïcain li mu def nii mu encouragé ko ci bu baax nangul ko ko te fas yéene ko accompagner incha allahu rabbi ba nga xam ni événement boobu dina nekk événement une grande réussite loo xam dañ koy fàttali ko encore incha allahu rabbi ci histoire u làmb kon nag wax dëgg yàlla loolu moom moo doon moo doon mëbatu kàddu yi ma doon gën a firndeel ginnaaw suñu PDG bi mu waxee ba pare pour leeral li nga xam ni en ñun moo tax a jóg euh, PDG Doumbia damay wax ni euh, dañ koy gis toujours ci télé bi di gis kii mais yooyu yëpp muy def yooyu yëpp c'est pour les jeunes loolu yëpp muy def yëpp c'est pour askanu Sénégal yàlla koo xam ne la ku ku ku ku ku jara bàyyi xel la koo xam ne ku jara topp la parce que li muy def yëpp daf koy def par générosité daf koy def par bëgg réewam daf koy def par bëgg goxam kon nag wax dëgg yàlla ñi ñuy ñaan ñëpp di jox Sénégal yëpp rendez-vous fële ci Gambie incha allah le 28 mars incha allah bi ñu jëm 2021 ah ñu ngi leen jox rendez-vous foofu ci Gambie bu ko kenn rate incha allah rabbi jërëjëf. waaw Lamine ñu lay fay di la ziar bu baax di nuyu waa Sénégal yëpp rawatina ñi ñu suivre ci luttetv.com. di nuyu DC Pape Doumbia DC Prestige di nuyu monsieur Meng ak sekk Ndandan di nuyu waa Thiès yëpp ñun nag tey dañ am contentement bu mag ak mbégte ndax fi ñu ñëw ak nit ñu dalalee ak nit ñu ak yére lii di wane ne rek Sénégal bëri na ay jàmbaar Sénégal bëri na ñoo xam ne nii ñu ngi taxaw ci développement réew mi di taxawu seen askan di dimbale seen askan ndax ku ñëw ba fii ci Thiès. ubbi fi lu mel nii société jël ay ndaw di leen di liggéeyloo kooku saar yu mel noonu nañ leen di bàyyi xel di ko ñaanal nag lépp lu mu mébét ci Thiès yal na yàlla teg loolu ci loxoom ndax koo xam ne joxaguñ nekkagoo maire yi yoragoo benn poste ci gouvernement di liggéey liggéey bu am solo bi ñii bu ñu leen dénkee suñu réew ñu yóbbu ko fu kawe njort ñun saar yu mel nii la ñu soxla ci réew mi ñun nag moo tax bu ñu nekkee ay ndaw gis kuy soutenir ndaw ñi di jàppale ndaw ñi ñun tamit su ñu nekkee ci dara dañ lay bàyyi xel di la gëstu pour delloo la njukkal ndax ñun ay ndaw lañ te askan boo ci xasee teral kenn rek teral nga ñëpp ku dimbale benn ndaw ñun nga dimbale ku soutenir benn ndaw ñun nga soutenir te moom loolu lañ gis ci moom ndax mu ngi jël ay jaam yàlla dini liggéeyloo di leen di fay ñuy suturaal seeni waajur bu ñu yàlla dénk teraanga yëpp defoon ni moom benn jeune du fi bàyyeekoo di de dugg ci naka su naka sudul noonu kon ñii dañ leen di war di wane di wane seen liggéey di wane lu ñu def moo tax man en tant que leader jam production nekk jeune nekk ci làmb di ci yëngatu saar yu mel nii la ñuy bëgg lëkkaloo di wan lan lañ def ci réew mi moo tax ñu jël drapeau bi ñëw delloo ko njukkal ndax dañ gis lu mu def rek su fekkoon ne nii nekkul koo xam ne nii jàmbaar la wala liggéeykat la ah duñ jugee Dakar romb ay dox ay kilomètres ñëw ba fii fekk ko fi dañ yàgg gis liggéeyam ci làmb surtout ndax Prestige TV làmb ju am dakaar dina bàyyeekoo fii dem ay moyen boppam ñëw couvrir ko ngir lan luy bégal askanu Thiès luy bégal doomu cees kon kii waa Thiès yi nañ ko taxawu ànd ak moom jàppale ko ba li mu bëgg ci Thiès moom mun ko def ndax tamit ndimbal da ciy fekk loxoy borom nit mun na nekk di la dimbale waaye pour ndimbal gi gën a yokk yaa koy jox pouvoir yu lay gën a mën a dimbale kon waa Thiès nañ ko jox pouvaar yi mu yóbbu Thiès fu kawe gis nañ ko ci jikkoom gis nañ ko ci moom ñu ngi koy ñaanal nag lépp lu mu bëgg ci Thiès yàlla nag ko yàlla defal di wax ne moom moo tax bis bu ñu tegee loxoom tànkam Gàmbi dina xam ne ñun fi ñu ko delloo njukkal foofu lañ ko war a delloo njukkal ndax du doomu incha allahu rabbi dinañ ànd ak ñaari mbëri fii ñëw bël ko drapeau am bu bis baa mu indi ko waaw te ñu ngi jëm Gàmbi nii le 6 euh, le le le le bi incha allahu bi bu ñu demee Gàmbi ba mu gis image dina xam ne dugaluñ ko ci bis bu ndaw ndax ku ku ponkal nag soo koy dugal da nga koy dugal ci bis bu mag. làmb joo xam ne ci soiru làmb gambi événement bu toll noonu mosu fa am combat boo xam ne sept ans kenn ku nekk bëggoon nga ko tëgg yàlla jagleel ñu ko ñu def ko pour bëgg a yóbbu làmbu Gàmbi feneen ak làmb Sénégal ah bis boobu noonu kuñ si delloo njukkara da nga ko mérito duñ ci delloo njukkal ku ndaw jàmbaar pire liggéeykat piir ku bëgg Afrique ku bëgg askanam ñooñ lañ ciy delloo njukkal moo tax suñ ne Youssou Ndour héros la ci Afrique liggéeyal na Afrique lu nekk liggéeyal réewam lu nekk fu mu taxaw di wax day défendre Afrique te moom mii loolu lañ gis ci moom ndax gëm sa bopp rawul mu ñëw ba Thiès taxawal fi société bu mel nii ñeneen ñu ci bëri lu ñuy wax Dakar rek dakaar moom dafa wane ne fonk na Thiès fonk na fi mu dëkk fonk na réewam fonk na doomu réewam kon waa Thiès nañ ko jàppale ànd ak moom li ñu bëgg moo leen ko mën a jox mu jox leen ko mbokki Sénégal mbokki Gambia Jamaïcain le promoteur de la Sénégambia moo ñuy jox rendez-vous le 13 février incha allah foofee ca Gambie ca stade bu Pakao face to face bi war a am ci diggante Leket ak France booy Balla ak building bébé xarañ ak amical ak yeneen i ndaanaan ñu war a waree seen bopp ci bés boobu. ñu ni animation ba kan moo ko géré ñu ne. ñu ne Momo Ngom ak artistes yi ne ci diwaanu Gambie yëpp sponsor bi ñu ne DMG Property la xel comme automobile White House Résidence en collaboration avec la TFM Lutte wasaare lamb Conscient TV am mbokki Gambia nag am ngeen bés le 13 février incha allah